man maa ngi tudd docteur Alioune Blondin Diop sama spécialité médecine interne maanaam lii touche lii ay lii may may maanaam feebar feebar euh, dal ñoo xam ne dañu am ay rhumatisme inflammatoire man euh, ku xarañ la daal ci infection euh, VIH ak loolu moo gën a tax nag may toppatoo affaire coronavirus maanaam mbas bi bi dal dëkk bi temps yi. voilà kooku di docteur euh, Alioune Blondin Diop moom lañ dalal tey euh, ci suñu page invité docteur bu yàggul euh, dégg nañ la yow docteur nga ne dañoo war a bàyyi sénégalais yi mu dëkk ak li nga xam ne mooy virus bi tey jii mu mel ni njiitu réew mi fekk si na la ci. ban analyse nga ciy def. waaw kay maa ngi lay sant gërëm di la gërëm ci question bi parce que il faut ma am loo xam ne dama ko war a leer. Mhm. li ma doon li ma waxoon boo li ma waxoon mooy ne bu fekkee ne feebar bi commencé na dal ci dëkk bi ba pare mhm. wàññeeku. day des ay virus maanaam jàngoro bi day continuer di di toog ci tuuti ci dëkk bi. Mhm. bu boobaa bu boobaa lii muy toog lii muy toog ci dëkk bi mun nañu. considérer que il faut que ñun maanaam ñu am lu ñuy manager maanaam maanaam ñu ñu ñu ñu dundee ak ak virus bi mm-hmm. mais mais mais xalaatuma benn yoon ne fi mu ne instant yi ñu mel nii nga xam ne fi mu ne feebar baa ngi law nit ñaa ngi commencé di dee ñoom donc le contamination yi ñu ngi yokk xalaatuma benn yoon ci instant yi ñuy ñu xalaat di di di dund ak virus bi mm-hmm. li ma xalaatoon mooy bu fekkee ne feebar bi commencé na wàññeeku ci dëkk bi nit ñi commencé génn ba pare ñuy augmenter dépistage yi pour ñu xam ñiy génn ñan lañ lan ñan ñoo ci wàlle mm-hmm. lan la ñu ci ñan ñoo am ko jàngoro bi ba xam ba xam ne léegi génn nañ ci feebar bi mm-hmm. ak ñoo xam ne feebar baa ngi ci seen yaram bi léegi loolu la la ci loolu laa dem laa doon xalaat mm-hmm. te boo liire article bi euh, enquête bi enquête euh, ci benn journal bu tuddee su beneen journal seen benn confrère boo liire journal bi exactement loolu la expliqué ma ma bëgg ma bëgg tamit dolli dara li ñuy tuddee immunité collective. Mm-hmm. ànduma ci tey ànduma ci ëllëg. Mm-hmm. ñiy jiite kur kuréelu euh, wérgu yaram. Mm-hmm. bu ñu jëlee décision boobu ak ñi jiite dëkk bi bu ñu jëlee décision boobu ñoom ñoo xam lu tax ñu def ko mais man immunité immunité collective immunité pop collective ànduma ci tey ànduma ci dëkk bi mel ni France. dëkk yu mel ni Angleterre. Mhm. dëkk yu mel ni ñeneen dëkk yoo xam ne def nañ ko. image yu def ko ci njëlbeen mu mel ni Corée nga xam ne dañ koy def ci njëlbeen mais Corée bi ñu koy def. Mhm. xam nga lan lañ lan lañ lañ def dañu dépis dañ doon def ay cent mille dépistage bés bu nekk. boo defee cent mille dépistage bés bu nekk. Mhm. mën nga lever mën nga mën nga wàññi confinement bi. ni ñi di sol masque nit ñi di di jël ay gel nit ñi di moytu di di nekkante seen biir. Mhm. ba pare boo defee dépistage su ko defee ñoom ñëpp dañoo amoon ay ay technologie technologies maanaam boo solee sa montre di génn. Mhm. bu fekkee ne yow am nga am daje nga ak koo xam ne. am na virus am na am na am na am na jàngoro bi. Mhm. automatiquement sa montre da lay ne ah fi mu ne jege nga koo xam ne am na corona ñëwal ñu testé la xam nga ñun technologie yi amuñu ko. waaw ñooñu Corée nag moo ko Mhm. ginnaaw Corée beneen dëkk boo xam ne comment feebar bi commencé na law sa dëkk nga yëkkati nga bàyyi mesure barrière yi ba pare nga ne nit ñi la continuer leen di wàllante seen biir loolu ku ko def rek di ci am musiba maa ngi ñaan yàlla na kuy dëkk bi ñu musal ñu ci mais anduma ci tey ànduma ci ëllëg. kon daal jàpp nga ne autorité yi dañoo baral euh, li nga xam ne waruñu ko woon def. non dañ ko teel a def dañ ko teel a def lii lii borom dëkk bi li li mu waroon def mooy ne léegi kontaan naa ci yéen parce que fi mu ne commencé ngeen respecté li ñu am maanaam anam yi ñuy jël ak mesures yi ñuy jël kontaan naa maa ngi leen di nag yëgle yëgal ne que fii ak weer bi di dee maanaam 31 mai. Mhm. man yaakaar naa ne feebar yi ñoo commencé wàññeeku bu fekkee ne commencé na wàññeeku maa ngi leen di digle digle que dinaa lever confinement bi wala moo wàññi ko. waaye nag dama leen di wax dama leen di yëgal dara bu fekkee ne da ngeen léegi. jour bu boobaa damay yokk aussi ñuy war a def confinement mhm. mais bu fekk ne continuer nañ di respecter mesures yi man dinaa dinaa dinaa ànd ak kii dinaa ànd ak yéen ba pare wàññi confinement bi mhm. mais def ko ci dëgg ni non loolu man comprendre ma ministère de la santé comprendre ma ñi ñi di tee ñi di tee ma la xaw ni xaw c'est-à-dire dafa bokkul ci benn expérience benn dëkk daal mhm. bokkul ci benn expérience benn dëkk kon daal njeexital bi mën na jéggi dayoo tey jii ak. Euh, virus jéggi na dayoo bu baax sax. boo mayul dinañ am euh, le pire comme ni ko ñenn ñi waxee. non mais yàlla mën na xam nga yàlla mën nañu musal parce que fi mu ne ñun quand même bu ma xoolee exemple Maroc mais ñoom defuñu loolu ñoom dañu continuer cette mesure de confinement ba mu kii wala nga xool Afrique du Sud. Mhm. wala nga xool ay pays yu mel ni euh, Algérie. Mhm. maanaam yàlla def na ba nga xam ne suñu population africaine. Mhm. xamul xamuñu lu tax. mais ñi ci ñi ci ñi ci euh, maanaam ñi ci euh, gaañu daal alhamdulilah barewuñu noonu. Mhm. yàlla na jëm kanam. li ñu war a xam. Mhm. moo bu fekkee ne ni ñu ñi ñi ñi ñu ñi ñu wàll dañuy yokku parce que dañu wàññi mesure de barrière yi. Mhm. mais ñi nar a dee dañuy yokku tamit parce que wàll bi yow ah, yow yow madame Diatta wala man docteur Blondin. bu fekkee ne dal na ma yàlla mën na def ma mosu ci ma parce que aw ma yeneen jàngoro. mais bu dalee benn paa boo xam ne am na diabète hypertension te Sénégal ñi am diabète hypertension kenn xamul ñu mu toll. bon bu fekkee ne ñooñu dañ leen da da affaire bi daf leen dal mais ñooñu mun nañ ci de. Mhm. kon léegi bàyyi mesure yi dafa mel ni da nga ne ñii feebar ñii mag ñii xam ne amuñu doole. Mhm. maanaam seen seen yaram amul doole. maa ngi leen di bàyyi ak virus bi. lu yàlla def rek muy doon. loolu loolu loolu nag moo jéggi dayoo. bàyyi ko googu noo ko jàngatee. man kay dama waaru dama waaru dama xamul dama c'est-à-dire dama xamul ci épidémiologie c'est-à-dire feebar épidémie yi mos am ci monde bi par exemple xoolal Ebola man man jàng ci article bi ma njëkk a def dama dama dama doon proposer stratégie confinement Sénégal mais bi may stratégie bi may étudier stratégie étudier naa modèle Corée Chine. Mhm. Euh, Taïwan France. Italie ak ak ak Ebola. Mhm. mais bu ci nekk confinement bi bu ñu koy respecté ci la feebar bi di wàññeeku. Mhm. mais Ebola xam nga lu tax lawul noonu parce que Ebola yi ci àll bi la woon. Mhm. ci forêt équatoriale wu kii comme ci Congo wala ci forêt wu Guinée ak Sierra Leone nga xam ne paysans yi la doon dal te paysans yi pour ñu jël avion wala ñu jël ay oto et cetera amuñu doole boobu. moo tax affaire bi yem foofu. mais bu fekkee ne woon dafa dal Ebola dafa dal ay mel ni Chine mais mais day day day day day dem day parce que chinois yi ñoo ëpp actuellement ci monde bi ci ñuy voyager chinois yi ak européens yi mhm. mais bu amoon Ebola ci biir seen seen seen biir dëkk ñoom mais day law ci monde bi parce que ñoom ñoo ëpp xaalis actuellement chinois yi ba pare ñooy ñooy ñooy gën a voyager ñoom seen avion bopp ñoom seen compagnie bopp ba pare di dem ci moom ci ci dëkk yëpp ci monde bi ñoom chinois yi ñu nga fi ñu nga fa. mais mais donc léegi confinement bi léegi confinement bi dañ ko war a maintenir ba pare ñu xaar bi affaire bi xoolal wàññeeku nga xam ne parce que virus bi day mm-hmm. lu tax ma doon wax ne dañu war a cohabiter ak virus bi mm-hmm. maanaam dañu war a dund ak virus bi mm-hmm. parce que virus bi du dañ du dañ complètement c'est-à-dire même bu fekkee ne feebar bi wàññeeku ne Sénégal ba jeex ah dina dégg toog nañu deux ñaari fan wala mm-hmm. ñetti fan amuñu contamination léegi nga jékki-jékki ne eh Patte gis nañ fi benn pas. Mm-hmm. benn benn cas cas bi contaminé na vingt cinq su ko defee dañuy dem dañuy dem Patte confine confiné ñooñu. Mm-hmm. def seen test faj leen et cetera loolu laa doon ci loo li ma doon xalaat mooy loolu mooy il faut ñu jàng ñu jàng ñu jàngat Sénégal ak ci monde bi même France noonu la nar demee ak Europe ak États-Unis virus bi du dañal complètement disparaître complètement ci àddina bi loolu moom du fii fii ak amuñu vaccin du mën a dañ waaw mm. donc léegi li ma doon li li doon sama xalaat mooy mm. bu fekkee ne dañuy dem ak virus bi il faut nit ñi continuer xalaat ne masque dañuy continuer di ko sol fii ak mm. at mm-hmm. euh, di euh, soluté hydroalcoolique di sa raxas sa loxo cinq wala dix fois bés bu nekk il faut que ñu continuer di koy def mooy tuddi dajaloo il faut que ñu continuer di def li ma doon wax cohabiter mooy même bu fekkee ne feebar bi yàlla def na mu wàññeeku bu baax. Mhm. habitude yooyu foog ñu continuer di ko maintenir loolu la moo doon sama xalaat. Mhm. mais li gouvernement bi def nii man awma ci benn jàngat c'est-à-dire lan ban logique lay lay répondre quoi. Mhm. docteur tey jii gis nañ ne Sénégal ba tey am na ñu fi nekk gëmuñu ne feebar boobule am na tey jii ñooñu le nan lañ leen mën a gérer euh, euh, jamono ji nga xam ne ku nekk tey sa responsabilité dafa engagé. waaw kay loolu ma loolu question bu am solo ba da da nga war a xam dara xam nga doomu jàngoro xam nga ñun africain ak même Amérique latine même Europe sax am na même États-Unis am na doomu jàngoro boo xam ne doo ko gis. Mhm. parce que mu ngi parce que bët mënu ko gis. Mhm. Hmm? boo xam ne nekkul nekkul comme palu palu xam nga da ngay paludisme da ngay gis yoo. Mhm. bu la jooyoo jamee bu la jooyoo matte automatiquement mhm. euh, su ñaari fan ñetti fan nga su ko defee da ngay mën a xam ne ah yoo yi ak sama feebar am na lien mhm. mais doomu jàngoro bi parce que doomu jàngoro kii nu mu tudd ci coronavirus kenn du ko gis deuxièmement ñun africain c'est-à-dire li ñuy tudd transmission humaine c'est-à-dire feebar boo xam ne nit ak nit moo koy wàllante mhm. suñu suñu xam-xam ak suñu conception ak feebar àndu ci parce que ñun ku feebar. Mhm. ima dafa am ci ñu bëri ci dëkk bi ah. ima da ima da respecté la yoonu yàlla. wala dafa am koo xam ne da bañ nga jox la feebar bi <laughs> wala koo xam ne daf la wàll wala nga am ci biiru nga xam ne vraiment yoo moo la koy di mais bu dul loolu loo xam ne doo ko gis pour nga imaginer que jege nit rek mën na la jox feebar bi. Mhm. dafa dafa metti pour ñu xalaat ko du pare ñu mën ko imaginer comme nga li ma la wax. Mhm. est-ce que ah voilà. ay idées socioculturelles la. voilà ah, repren ni ñu tuddee représentation socioculturelle mm-hmm. waaw loolu dafa compliqué ci ñun mm-hmm. bon mais mais bu fekkee ne mais comme nit ñi euh, par exemple man amoon naa semaine dernière mm-hmm. xaw naa ko parce que Dakar dañuy wax masque yi mais même ñi nekk mécanicien ñi nekk marché ñëpp sol masque ñëpp sol masque ma commencé kontaan ci loolu mais tey ci suba maa ngi par exemple fi mu lay gis nii maa ngi sama fenêtre am na ñoo xam ne solatuñu masque donc léegi léegi ñun ñëpp ñëpp ñoo xam ne commencé noo ñu gëm feebar bi décision yi ñu jël day tax bi ñu ne ah waxam nañ leen nii amul waaye lii amul. Mhm. nit ñi dañ ñoo ko inventé rek nii waaye lii amul nit ñaa ngi commencé di bàyyeeku. kon daal message message du message bu baax daal bàyyeeku bi. en tout cas du message bu adapté. Mhm. ci njëgën yi. voilà c'est-à-dire dafa war a doon message boo xam ne day continuer di wax nit ñi na ngeen continuer di aar seen bopp di aar ñi ngeen dëkkal. Mhm. mais mais loolu moo doon message bi. man daal comme man daal xel maa ngi xaar. jënd naa journaux yëpp tey pour lire jéem a comprendre ban ban explication à part koo xam ne daal professeur boobu nga xam ne dafa doon wax ay immunité collective te kooku moom. noo def war mu noon yow organiser benn débat man ak moom. Euh, xam naa dina dina am ci réew mi dinañ ko organiser incha allah. ah oui parce que man kooku il faut que ma wax ak moom. parce que li mu wax yëpp daf ñuy c'est-à-dire dafa confondre situation yi quoi vraiment man bëgg naa wax ak moom pour wala ma defee na article pour tontu ko. <laughs> immunité collective ce n'est pas adapté au Sénégal actuel. immunité collective immunité collective da nga koy mais France sax. bi ñu dosé xam nga France am na deux cent quarante mille personnes yoo xam ne feebar bi dal na leen mm. presque trois cent mille mais bu ñu dosé seen immunité pour xool ndax immunité bi dugg na xam na ñaata ñoo ci amoon immunité six pour cent motuñu six mille ci étude bi ñu def mm-hmm. deuxièmement six mille yooyu boo xoolee boo xoolee seen seen deret même am na ñoo xam ne dañu am anticorps maanaam euh, sama boo amee feebar. sa sa yaram yàlla def na CRM day am benn système immunitaire boo xam ne day génn ay gendarme yu xeex yu xeex feebar gendarme yooyu moom la ñu tuddee anticorps bon gendarme anticorps yooyu ci ay ci yenn feebar yi anticorps yooyu mën na tax beneen beneen jàngoro bu ñëwee doo ko doo ko amati mais am na yenn feebar yoo xam ne même bu fekkee ni mos nga ko par exemple paludisme boo boo amee boo amee ci biir mais bu fekkee ni même am nga sibiru ba wér. Mhm. mais semaine euh, weer bi ci topp mën ngaa man beneen sibiru bu dara. beneen sibiru. voilà mhm. moom boo mooy immunité bi mu lay jox du immunité protective. d'accord léegi ñun ci ci corona ci coronavirus. Mhm. kenn mënu la wax ne tey ci xam-xam yi ci ak ci digg ci niveau xam-xam bi ñu am tey tey tey tey treize mai bi ma lay wax nii. kenn mënu la wax ne doomu jàngoro euh, corona. boo ko amee immunité bi mu lay jox da lay protéger comme beneen corona. Mhm. Euh, docteur Dieng dafa corona bi 62 62 corona moo am du benn 62. kan ma la wax ne dool doo beneen corona du wàll non kii kii wax loolu moom dafa juum complètement wala dafa xamul li muy wax euh, wala ah, xam naa ne gaa professeur la xam na li muy wax mais li muy wax adapté wul ak Sénégal. docteur ci leneen muy pic bi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy laam-laame gis nañ ne ci diiru ñaari fan rek am nañu deux cent quatre-vingt-six malades ak lu toll ci deux mille ñi nga xam ne dañ leen testé positif euh, ministre de la santé moom jàpp na ne euh, tey Sénégal egg na ci pic ndax yow loolu moom nga gis. waaw mais man man yaakaaruma pic bi ak ak ak ak àgg nañu ci pic bi xam nga lu tax. Mhm. Euh, ñii jiite ñii jiite dëkk bi nee nañu ne. que fi mu ne ci quarante cinq départements juróom-ñett yëpp rek ñoo am ñoo am ñoo am ñoo am feebar mm-hmm. ak ñoo am compte euh, kii du doomu jàngoro bi mais mm-hmm. ça veut dire que juróom-ñaar amuñu ko ça c'est une chose deuxièmement dama yaakaar de que Dakar ñi ñëwee surtout ak mesures yi jël léegi nga xam ne léegi dañuy alléger affaire il mm-hmm. faut ñu am yeneen ñoo xam ne dañ leen contaminé su ko defee bu fekkee ne ñu contaminé nañ leen ba pare à mon avis aux alentours du 20 mai fii ak ñaar ñaar fukki ñaar fukki fan ci mois de mai bi ci la ñu àgg ci ci ci ci pic bi aux alentours du 20 20 mai quoi mhm. mais fi mu ne instant yi day day am ko de continuer di contaminer wu pendant au moins dix jours encore mhm. après nag ci la ñu war a xool ndax nouvelle contamination yi wàññeeku na te te loolu te loolu xam nga comme léegi commencé nañu interrégion yi man li ma gën a jaaxal mooy département yoo xam ne amuloon de amuloon ci mais boo levee transport yi mais day am yeneen wàll ñu ñuy wàll fa ci yeneen département yi mhm. li mu waroon def kay borom dëkk bi mooy département yoo xam ne kenn laalu leen mhm. mais foofu nga confinement bi nga allégé ko département yoo xam ne comme bosu Dakar ak Touba nga xam ne bés bu nekk nga dégg ne am na ñett wala juróomi cas communautaire waxuma la sax cas contact yi mais nga tëj nga tëj nga continuer confinement bi nga gën a durcir confinement bi ci dëkk bi dëkk yu mel noonu yi dëkk yoo xam ne kenn laalu leen. Mhm. nga tëj dëkk dëkk yooyu nga mën a alléger confinement bi tuuti. loolu moo doon xel daal. Eh, jërëjëf docteur Blondin Diop. merci beaucoup docteur Alioune Blondin Diop. muy euh, interniste doonoon ancien praticien hôpitaux de Paris merci beaucoup.